maa bëgg def ki pendant trois ans benn bés la xëy ñëw. mu dugg man nañu jëlu ki ci ki ki ci ligne bi 88 628 14 13 allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen def. ñu ngi fi rek euh, ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah naka émission bi vraiment kontaan naa ci surtout. bi ngeen invité ñoom Pawlish ñoom Poussin ak ñëpp noonu ci laa ko commencé seetaan mu nekk lu raf lu ma rafetlu émission bu neex. jërëjëf merci beaucoup noo tudd ak foo ñuy woowee. maa ngi wootee Cincinnati États-Unis maa ngi tudd Amina change laay waxal sàcc bu mag bi moo sàcc sama or la rek. ayca. 88 628 14 13 bu fekkee ni que euh, am na ku war a duggaat rek. ñu dugg ayca euh, da nga fay da nga nekkoon si benn point bu am sens. ayca ñu nekk donc foofu laay nekk pour wax ne que. 88 waaw danga nga def. ça sant bu baax alhamdulilah soxna si. ça alhamdulilah ça bu baax noo tudd ak foo ñu woowee. waa maa ngi tudd uh, Marème Mbaye Diop. Mm-hmm. maa ngi dëkk Gueule Tapée. ah ñu ngi kontaan bu baax sa participation si émission bi. suivre le débat bi fi ñu toll waaw di rafetlu di seen émission bi. merci beaucoup di mm-hmm. wax dëgg yàlla seen émission bi neex na lool. jërëjëf. wax dëgg yàlla neex na toujours dama koy seetaan. Mm-hmm. waaye tey seen émission bi ala daw na de. waaw waaw ala doom mel na lool lool ndax mhm. sama doom jooju fi toog muy taas mhm. taas moom fi toog moo tax mission bi ala daw mi yaa ngi may dégg waaw bu baax ñoo rek lañuy déglu waa kay ndax taas moomu sama doom dafa liggéey ba sonn ba am xaalisam mhm. taas sama alo allo allo ayca euh, euh, dem na 88 628 14 13 bu amee keneen rek euh, mu daal di dugg si fu ñu tolloon ayca.